man la Balla naa leen kii nag benn sàcc la waa ji dafa ñëwoon bëgg dugg ci benn kër mu tëb miir bi ne cëpp ba mu siggee rek yem ci Balla Gaye di entraîné fekk xam nga mi ngi pareel Gris Bordeaux. Balla xool ko ne ko mais sawaay sa tëb bi nice na sàcc bi ne ko mais tuddee naa la ko grand mais xam nga nag li nga si xamul génn bi mooy gën a cëpp.